d'enquête parlementaire ndax ay supposé corruption ak conflit d'intérêt ca conseil constitutionnel donc beneen ŋàññ ci conseil constitutionnel ñëw beneen bi mooy ñu am proposition de loi boo xam ne dañu ne proposition de loi constitutionnelle la buy ñëw pour dérogation à l'application de l'article 31 pour que ñu dàq pour que ñu dàq élection yi ba jëmmi jamono le août sax la ñu waxoon après lañ def amendement def ko le 15 décembre donc loolu tamit di ay jafe-jafe boo xam ne am na président de la république bi nga xam ne moom mooy garant di fonctionnement des pouvoirs publics dàqul élection waa këram waxuñu nañ dàq élection candidat am waxul ne dañ dàq élection mu abrogé li nga xam ne mooy le décret convoquant le corps électoral bi mu defee loolu assemblée nationale souverainement comme ni ko ko yoon maye ñu def li nga xam ne moom mooy procédure bi ñëw ñu reporter élection yi ci 15 décembre ci loi constitutionnelle loi constitutionnelle boobu ñu jël ko daal di koy attaqué au niveau du conseil constitutionnel mais conseil constitutionnel bi nga xamante nii fa lañ ko kalaame ñi nga xam ne ñoo ko kalaame ëllëg démb ak barki démb ñoom ñoo doon wax ne processus baaxul di ŋàññ conseil constitutionnel ba pare wax ne conseil constitutionnel bi nga xam ne mooy le juge des élections lu mun a atte li nga xamante nii moom moo am donc jàpp naa ne bu loolu amee ñu ñëw tey conseil constitutionnel jël décision ne loi bi nga xamante ne nii moom la euh, assemblée voté loi bi baaxul dàq nañ ko te ñu gis ne parce que loi nag ñun Sénégal la ñu dëkk jurisprudence am na fi l' esprit de la loi ak yeneen ak yeneen daf fi am mais à chaque fois bu leen fàtte ne ci biir décision bi amoon na beneen requête boo xamante ni mooy ñoom dañu ne woon conseil constitutionnel na fixer une date des élections mais conseil constitutionnel ci biir décision bi toujours loolu nit ñi wax ñu ko mooy daf leen a gàntal ca laaj boobu ba pare daal di bind ne d' abord con euh, élection yi mënuñu ko organiser li nga xamante ni mooy le vingt cinq février ba pare gantal seen requête boobu pour ñu fixer date élection ba pare daal di wax ne les pouvoirs compétent nañu fixer datu élection dans des meilleurs délais mais loolu li muy wane lépp moom mooy jafe-jafe bi nga xamante ni nii moom la ñu wax. au niveau des institutions ak du processus électoral kenn mënu ko dàq parce que c' des faits il faut qu'on soit dans le factuel maintenant nag loolu bu amee est ce que conseil constitutionnel bi nga xam ne am na ay ŋàññ yu jóg ay commission d' yu ñu ibbi ak loi boo xam ne indi nañ ko tey jii ñu indi beneen décision boo xam ne tàmmaluñ ko wax parce que droit nag aussi dañ koy wax tout le temps conseil constitutionnel dafa toujours wax ne le constituant est souverain te li may wax nii boo jëlee les décisions du conseil da nga koy gis ñu bind ko noir sur blanc tey mu ñëw indi beneen wax mais est-ce que loolu mënul tey xel oui est-ce que loolu mënuñu wax ne affaire fayantoo la mën nañu wax ne oui mais loolu lépp nag dafay indi la nga xamante ni moom la président waxoon mooy nañu toog waxtaan parce que man jàpp naa ne Sénégal am na ay acteurs politique majeurs yoo xamante nii situation bi ñu nekk war nañ mën a toog waxtaan pour que ñu am des élections libres transparentes et démocratiques d'autant plus que le président de la République qui est à la tête de ce pays avait dit que ñaari mandat lay def il a pris la décision de ne pas se représenter et il a réaffirmé cette décision lors de son adresse à la nation dernièrement donc je pense que tey jii décision conseil constitutionnel bi deful dara lu dul yokk problème par rapport ak problème yi nga xamante ni moo am par rapport au processus électoral par rapport à une crise des institutions. Hmm. Parce que vous le savez, quand on a ouvert la commission d'enquête, mis sur la commission d'enquête parlementaire. gis nga gis nga. Hmm. non commission d'enquête parlementaire maa ngi dégg ñuy wax mais man mii di président commission d'enquête parlementaire ba fi may wax ak yow Babacar amul benn këyit bu ma jot. buy wane ne ibbi nañ information judiciaire. Hmm. loolu ma wax ko ko xam. mais liggéeyu leen tamit. ña ngi liggéey que nag liggéeyu commission d'enquête parlementaire loi daf ko waruñu ci communiquer waruñu ci wax li ñuy def loolu aussi dafa doon loo xamante ni loi la ak règlement boo xamante ni mooy ci assemblée nationale. mais est-ce que audition yi tàmbale na ci foofee par exemple. donc di wax encore une fois de plus. que li nga xamante ni moom moo nekk. yaa ngi toog si tonso de. Abdou non xamoo Babacar mais. <laughs> xaw ma ku may laaj waaye ki may laaj moom dama koy wax ni mënu ma cee wax dara parce que loolu yoon daf ma koy tere. donc dañuy wax mbaa da ngeen tiit rek fi mu ne nii ba. non man nag boo boo dé boo déggee li may wax sax nga xam ne munu man man du koy tiit daal parce que man. Mm. jàpp naa ne li ñuy def ci nit pour muy tiit sax dañ ko fàttee bindaale ci man donc pour wax rek ne. Mm-hmm. li nga xam ne mooy la réalité parce que ça c'est une affaire très sérieuse te Sénégalais yi ci boppam Abdoulaye bëgg nañ xam ba xam Macky Sall euh, qu'est-ce qu'il déjà il nous doit un discours. war nañu koo dégg mais est-ce que est-ce que yaakaar nga ni dina dem ba ci jël article cinquante deux constitution jëfandikoo ko ngir dakkal euh, yoon wi jëm ci élection présidentielle bi nga xam ne conseil constitutionnel nee mën mënut a ñàkk naam duñ ko def vingt cinq février waaye élection à la est-ce que article cinquante deux di ngeen dem ba jëfandikoo ko. Babacar li ma la mën a wax ne Macky Sall loolu lay def mooy li ma xam ci Macky saal mooy xam naa ne c'est un xam naa ne bëgg na réew mi. te xam naa ne du def dara loo xamante ni dina yóbbu réew mi ci guuta loolu mooy li nga xamante ni mën naa la ko wax li ci des mooy responsabilité boo xamante ni am na ko tant à la tête de ce pays là il les prendra jusqu'au bout en toute responsabilité loolu mën naa la ko wax li ci des nag mooy comme ni ma la ko waxee réew mi am na des hommes politiques majeurs vaccinés xam na nga xamante nii moom mooy yoon ñu war ko def te tey jii difficulté yi nga xamante ni moom moo am conseil constitutionnel indi ko les hommes politiques indi ko les partis politiques de l'opposition indi ko parce que kenn musul dégg ñu ne nañu reporter ñun kenn musul dégg ñu def requête ne conseil constitutionnel dañ leen di ŋaañ kenn musul dégg ñu ne def na nangam donc aujourd'hui il faut que les gens assument leur responsabilité gis nga nit su fekkee danga def dara da koy assumer gis nga ñun la def ca assemblée nationale muy voter cette loi dañu ko assumer totalement parce que jàpp nañ ne yoon dafa ñu may la nga xamante ni moom mooy ñu voter cette loi là parce que sànq dégg naa Adji Mergane wax ko mooy l'article trois de notre constitution a dit que le peuple est souverain et cette souveraineté aucune section de la population ne peut se prévoir de cette souveraineté à part ses représentants donc loolu dafa doon loo xamante ni lu leer la moo tax ñun lépp loo xam ne def nañ ko assumer nañ ko maintenant ay républicain lañ ay nit lañ ñoo xamante nii gëm nañu yoon ay nit lañ ñoo xamante ni gëm nañ droit que la justice est rendue au nom du peuple sénégalais donc bu génnee ku nekk am nga sañ-sañ wax ca la nga xamante ni moom nga xalaat. ok euh, euh, euh, Abdou Mbow peut-être en français en tant que président du groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar par rapport à la décision du Conseil constitutionnel pourquoi vous dites que cette décision a créé beaucoup de problèmes maintenant. mais absolument ça il faut il faut le dire parce que je voudrais rappeler que il faudrait parte du point de départ. ce qui s'est passé, des candidats qui ont été recalés, presque une cinquantaine, avaient fait une lettre au président de la République. Avant même, ils ont fait une conférence de presse pour dire que le processus électoral a été vicié et qu'ils ont été écartés de manière pas normale. Ils ont écrit au chef de l'État et ont demandé au président de la République de reporter les élections, d'arrêter le processus électoral. et ils ont obtenu une fin de non-recevoir du président de la République. Après cela, un groupe de l'opposition, en l'occurrence le Parti démocrate sénégalais, a dit que son candidat a été écarté euh, d'une manière pas normale toujours, parce que euh, ils, ont, ils ont dit qu'il avait une double nationalité. Et après, vous avez vu même a découvert qu'il y avait une candidate qui avait deux nationalités. Donc la décision du Conseil constitutionnel posait encore un problème. commission d'enquête parlementaire a été mise sur pied pour des supposées corruptions et de conflits d'intérêts au niveau du Conseil constitutionnel. Donc le